digënté ak mom affection bu graw dama ko ci sétlu mana lan lan la lan la sa digënté ak jeen parce que man xamna mbañik bon am nga yenen bant yalla nañu gudd fante wër mais yeen ñaar dafa am lu graw lu ci amal lu xew ci digënté ak jeen waaw li ci xew moy dama am sentir euh, manam dama euh, sama bay bu muy dund euh, manam nama melon ci mom ma am fuma tek bëgguma ma lool lool lay sentir ci mom man sam pap bi muy dund dama dama ko bëggoon ma nga xamne mu jël taf ma ci bopam vraiment bëggoon ma lool maanaam bëri woon na njaboot mais man dafa ma si ñi mu gënoon bëgg ci laa bokk léegi nag loolu dama koy gis si moom mu bëgg ma am fu ma teg respecté ma fonk ma nag bëggul ma xiif bëggul ma man bëggul ma rafle loolu la ma teg def ko ba ba pare def ko ndeyam ay rakam waxi noppi ak jaamu yàlla yi oto bi moom oto otoom la. oto bi ngay dawal. mooy ni oto jéen la moo ko moom mu jël ah, jël caabi yi ne man rus naa di dawal oto yow ngay dugg si kaar yi di wàcc di jël ay oto ak di kii di man loolu rus naa loolu sànni ma caabi ne ko yaa moom waa doom bu la doom bu defalee loolu kooku amul fu mu la teg oto bi oto otoom la. ñii ñëpp si keroog bi ñu koy jëli ñii euh, euh, bi koy jëli si parking ba fële ñii kii si la àndoon bañ génnee mu ree ne ma ah kii sawto la moom te moom moo toll ci dawal oto fi mu nekk moom moo ci toll moom moo toll ci ndax il est xale di se comprendre gi toll ci jamono mais moom moo moo mais bëlbati ko loolu toll noonu ak yeneen yoo xam ne mënu ma ko wax sax tey su ma dee woon ma dee nelaw ndax moom waaw su ma deewoon tey ndeysaan Cheikh Omar oh. jigéen doo ko jox xaalis mu mu téye ko ci loxoom danaan joxal sam pap jox ko quarante millions day woote du ko laal mu nekk koo xam ne ku gëm li muy def la ku ko bëgg la lu yàlla dogal dañ koy nangu mais jéeri ñu gën a bëgg lépp gën ñu baax ñun ñëpp Ousmane la tudd yàlla ko gërëm yonent bi tàgg ko mu nekk ay ngëneel kii kii da daan daanu wóor daanu laa la wax woor daan wóor barke yonente bi mu nekk nit ku bëgg Seydina Muhammad ku gëm li muy defa ngi nii ku amul problème mu àddunaa ngi nii Diène amul problème mu àdduna li nit ñi yenu du ko yenu Diène soxlawul xaalis xanaa loolu dafa jafe ci xale yombul yombul mais yombul mais père père père euh, da wax su ma deewoon tey sama xel dal na sa rongoñ génn maanaam taxawaayam si sama njaboot li lii Omar dafa nané bon ah dom ju war na koo sàkku parce que nak nit nit rek la don. don wa ke parce que yaakar nané papam way juram la bayam, mënta gën bayam kon len la mën defal papam moy saral xoram te defe li témoin la quoi seede la ndax wax ci sa dom ba sa rongoñ touru ni nga ni suma déwon tay sama xel dal na ci sama njabot sa rongoñ genn yak say xarit yi nga xamné ay témoin lañu ñu tok ni ñom ñep ku nek sa rongoñ genn ça veut dire que kon jeen ah na gëna dalal xelam parce que li Cheikh Omar c'est pas facile de non li yombul li vraiment yombul ndax nak ñun ñep amna nañu ay wayjur ñun ñep xam nga ay doomu aadama lañ waaw lii daal waaw lii daal bon man mi di wax ak yow sax yàlla xam ne sama yaram daw na barke alxuraan billahi wallahi taala parce que lii dafa foor quoi parce que wayjur dafa fort wayjur dafa fort waaye doom nawle la te daa mel ni. gënul si moom lu mu amul rek gënul si moom barke lu mu amul dafa gënul si moom lu mu amul rek gënul si moom. lu mu amul gënul si lu mu amul rek dafa fekk gënul mais gërëm naa ko yaayam gërëm na ko barke yonent bi bëgguma sax di wax di jooy ci moom mu dama ko gërëm billaahi dama ko gërëm su ma su su dee su ma deewoon tey sama xel dal na ci moom day tey njaboot bi su boobaa parce que mu ngi koy jëfe mu ngi koy jëfe quoi nag àdduna noonu la sant yàlla garaawul ma rek. am na solo yaakaar naa. seexu waaw boo gisee buy bëri may génn ak yooyu yëpp xam nga mooy loolu waaw parce que rek. képp di seere tiim ko muy bëri loo xam lépp rek moo tax loolu laay ñaan kulu doom si say way jur fexe laq say ngir mala waajur si kaw suuf boo ko defee sadduna doo torox te moom li mu am ni si man man am naa ko samay waajur samay waajur góor ak ku jigéen am naa si ñoom ñaan yi moo tax man lu ma amul si àdduna cent 190 laa yor Mercedes damay dawal sax gars yi di ma tooñ eh waaw mais père yow ay million nga yor changé oto bi ma leen incha allah dina ñëw mais gis nga dafa jé bi muy ñëw sax yëguma ko sax mu ngi nii tey. mu jox la 4-4. jox ma kii pour yow la xam nga yooyu bu ko doom defee dafa ñaanal boppam daal moo tax bu bu bu amul bu bu bu ñàkkee nii ay affaires yi mooy loolu quoi da moo mooy li ma wax dafa gënul si moom rek. waaw dafa gënul ci moom quoi maa ngi jégalu nag se lii sax yii waruma waaw yii sax waruma waaw. moom nit rek la mën a doon. waaw yii waruma quoi parce que bëgg ma di wax si moom quoi. am na solo. cër bi ma jox cër bu garaaw la ma jox. war a wax ci bari na. ba gàmmu mooy jënd nag yi. Hmm? su su solee yërëm yërëm su solee yërëm du ko summi. li mu li mu li ma koo summi ba une heure du matin deux heures ñu commencé gàmm Pape Amadou Diouf di ko gàmm mooy booy bi nekk Asfiyaay di ko gàmm ànd ak si biyaanul muslimiina suñu président daayira muy Adama Diouf suñu imam muy imam Maodo Mbaye mais macha allah am na ñeneen ak ñeneen ñu nekk si ñëpp si mbooloo mi mais dafa yaru am teggin moo jour bi ko daanee fii dañ toog xool ñëpp ñëpp seen nga ñu di tuuru parce que dem dafa am fu ñu teg. te xam nga la nit ki soo yaroo su fekk say wéjur yaru da ngay sant yàlla yaayam fi du ko sant di sant yàlla ne alhamdulilahi rabbil alamin maa ngi xool ci xale yi zar ko yàlla ko ndam di jikk yàlla na ko yàlla defal jàmm wéjuram boobu li mu bëgg yàlla yàlla guddal fanam ba fekkee njëriñ zar ko ba mu defar ko lu kawe njortam yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def te lu mu song moom zar ko yàlla na ko yàlla na parce que foofu foofu lañ toll. adduna mbëri benn lañu. ku si nekk yaa ngi jaamu yaa ngi gis salari jiin bismillahi ma dee ci door maam góor gi njaay sutub maram jiin bàyyi maam maram njaay riw maa ngi may soow te ku réew mi soow booba danga siiw bàyyi ndey ak sa njaay maa yàgg ci coow ndaara yàgg na maa